Euh, jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi wuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan di juróomi waxtu jot na ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. waa aar li ñu bokk ak ñoo lànk lañ koy daal di nag doore ñoom ñi daal di nag sàkku li aju nag ci ñu daal di déglu wala rek xoolaat li aju ci contrat Senelec ak ak ile eh, ñoom seen daje tey ji lee ne ñu daal dañoo bëgg lépp lu ci aju ñu daal di koy xamal askan wi leneen la ñuy sàkku mooy ñu daal di bàyyi ki nga xam ne nag mooy eh, Abdou Karim eh, Guèye dinañ ci dikk ci ndaje bi ñu amal ni ki tey jile bés bi ñu jagleel itam ëllëg wàllu procé protestation mu nekk xeetu nag yëngu-yëngal bàyyi ko ci liggéey liggéeykatu croix rouge ñoom ñi daal di ñaawlu ñenn ci seen i nag camarades yi ñu ne dañ leen daal di dàq ci anam bu teguwul ci yoon ba tax na sax ñuy sàkku itam ñu daal di fësal rapport bi nga xam ne CENTIF daal na koy rek def euh, ci gestion bi aju ci barab boobu ñuy liggéey dinañ ci daal di nag jukki dinañu desandi ci euh, coronavirus bi bésuk tey ji benn fan ci weeru nag sulet ñuy daal di euh, dajale ñeenti nit ñu ci daal di faatu téeméer ak fanweer ak ñaari cas lañ fa daal di gis am na yu bàyyi ko nag aéroport bu ndakaaru ndax ay cas importé la euh, fukk ak juróom-ñaari cas euh, transmission communautaire dinañ ci daal di jukki ci situation bés bi euh, dinañ ciy desandi itam ci wàllu nag wax sa xalaat bi ndax gis nañ ne Sénégal daanaka boobu ba léegi li mukk téeméer ci ay nit ñu faatu daal na koy rek matal lim ñuy yëf yi di alawtiku itam di gën di bari jamono ji nga xam ne nag nit ñi bàyyeeku nañu ci jël matuwaay yi dinañ ci daal di nag jukki ci kanam dinañu desandi itam ci lu aju ci bésuk tey jile benn fan ci weeru sulet 94 jëm ba ci 2020 euh, seen rajo di daal di màggal ñaar fukki at ak juróom-benn yu mu daal di nag am rajo bu jiitu nekk privé ci même réew waaye itam di jiitu ci wàllum wasaarem xabaar euh, tey jii daal nañ koy rek euh, mandargaal dinañuy dellu si ci taarixu jaar-jaaram waaye itam yenn ci taxawaayam ci diwaan yi dina bokk itam ci wax sa xalaat bi ngeen mën ci àddu laata ñuy dalal ganu bés bi buñ ca noppee ubbi antenne ci wax sa xalaat lay doon esquisse lay doon. Adama Ndione. Euh, ci kàddu gi ñu daal di koy nag doon rek waa aar li ñu bokk ak ñoo lànk ñoom ñi daal di euh, santaane ñu daal di nag euh, dégluwaat li aju ci wàllu contrat Senelec ak ak kile ñoom la ñu daal di nag gis mooy contrat bépp boo xam ne Senelec def nañ ko bëgg nañu daal askan wi daal di koy nag xam ñu xam itam tolluwaayu plan yeesal li ni mel dina mën a tax nañu gérer ressources yi mu daal di nag leer ñu ngay sàkku leneen mooy seen naataango rek di Abdou Karim Gueye ñu gën koo xam. xam ci xurum xa nee na pour ñu daal di koy bàyyi tey jii ci seen conférence de presse dañ ko xamle kii di di Ndeye Fatou Diop Blondin nekk coordonnatrice plateforme aar li ñu bokk ñu déglu ko ay satu Gueye Ba te nañu xaatime contrat bi maanaam lépp bépp gàllankoor boo xam ne am na rek Senelec mooy moo ci gaañu te Senelec mooy ñun Akilee moom dara du ko ci fekk contrat yi Senelec signé ak yeneen i société yeeg Excelec ak yeneen ak yeneen ah ba fi ñu toll nii ay gré à gré ak yu bari ñu ngi ci biir nañ ko audité te lu mel ne OFNAC lu mel ne cour des lu ko mel ne inspection générale d'État ñi nga xam ne ñoom quand même parce que Senelec société boo xam ne ba léegi as askan bi ñoo ci ëppale ñoo ko moom nañu ñëw càmbar contrat yooyu ba mu mën a méngoo ak yoon nañ ñu wax plan yeesal boobu ñu ne woon dafa war a defaraat Senelec defaraat taxawaayam jox ñu énergie bu bu sell ci njëg gu am solo boo xam ne mën nañ ko supporter fan lañ ci toll ca plan ba ndax wax dëgg yàlla liggéey nañ ci liggéey bu sori ak ay poñ yu am maanaam ma ci biir kii di directeur général société euh, senelek ñu wax la ñuy wooye appel à candidature maanaam ñu ubbi ko seet ci askan bi woo ñépp ñi nga xam ne seen xel màcc na ci loolu mu ñu càmbar leen ba seet kan moo ko gën a yelloo kan moo ko gën a mën ba mu fexe ba téyal ñu suñu société boobu ba mu mën a dox gannaaw am na ay société yoo xam ne doomu réew mi ñoo ko créer ñoo ko defar di xaatam di liggéey ci loo xam ne lu am solo la ci fi ñu toll nii lu mel ne la Akilee di liggéey ak ñeneen ak ñeneen baax na bés bu ñuy wut ay société yi ñuy liggéey ñu seet ci société yooyu jox leen ko Abdou Karim Gueye fu mu nekk nii dafa feebar lépp lu fi daa nàcc moo ko moo moo ko rendi lépp lu fi xew mooy jël décision bi kon boog nañu bàyyi suñu camarade boobu mu dellu ca këram bala fay musiba di ko fekk ñun ñëpp ñuy taxaw di di di di nekkati ci tolof tolof Euh, mu nekk seen nag sàkkute xeex bi daal nag jógaat ci kuréel yooyu la ci wàllu wax sax di ngeen ci mën rek addu kuréel yooyu daal di jógaat ngir rek lépp loo xam ne euh, jàpp nañ ne dañ ci war a taxaw askan wi daal di koy nag yëkkati euh, bésuk ëllëg nee ñu itam liggéeykatu croix rouge ñoom dañuy daal di nag taxaw daal di ñaawlu li aju nag ci ñenn ci seen naataango yi ñu daal di nag dàq ñoom jàpp nañ ne teguñu ko fenn liggéeykat yooyu di daal di sàkku itam ñu daal di siiwal rapport bi nga xam ne CENTIF def nañu ko ci anam anam boobu ñu yore euh, seen i institution kii di Oumar Dieye nekk délégué personnel bu Croix-Rouge ñu déglu ko ak Babacar Samb. dafa am suñu benn camarade bu bokk ci ñun ñu licencié ko ci anam yi nga xamante ne jaadu donc ñu gis ne par parloo dafa am ci boobu ndax euh, diggante deux mille dix à deux mille à nos jours li fi am Croix-Rouge weesu na scandale et dañu gis que ne les même personnes yi nga xamante ne ñoo amaloon loolu ñu ngi leen làkk et que li ñu topp Babacar Badiane li nga xamante ne nii maanaam dañ ko singili pour euh, faagaagal ko euh, dàq lañ ko depuis euh, le 10 février lañ ko dàq li ko waraloon mooy ñëpp xam nañ ne pour pour mauvaise gestion rek am yenn pratique yi tey na du mën a ñàkk ci travailleurs yi doonte jaaduwul mais nag bu fekkee ne loolu am na ñu bëgg a àtte yoon dañu bëgg a yemale ñëpp même àtte mais dañu si gis ne dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu la ñuy ñaaw lu ñuy travailleurs yi moo tax ñu bëggoon ki nga xamante ne ni mooy sentif te nga xam ne amaloon na contrôle ci kër gi recommandation yu mu def ñu bëgg nañu xam yan recommandation la bëgg nañu aussi conseil d'administration sortant décision bi nga xamante ne jëloon nañu ko pour céder benn ci seeni terrain pour régulariser cadre social yi ñu appliquer ko fi mu gën a gaawee nax nag am na travail yoo xamante ne dem nañu retraite depuis juillet deux mille dix neuf te jotaguñ seen départ te am na ñuy waaj a dem donc nag ñu bëgg ñu gaaw régler problème boobu ci li mu gën a gaawee ndax bu dul loolu ku ñu jëm ak euh, benn fan ci weeru sulet bi itam tey jile ñeenti nit ñi daal di nag faatu ci coronavirus bi téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay kaa yu bees am na itam euh, cas importe yu bàyyi ko ci bitim euh, réew fukk ak juróom-ñaar yi cas yi nga xam ne nag cas transmission communautaire la diggante Ndakaaru Touba ak Ziguinchor am na fanweer ak juróom ci ay patients yu nekk réanimation ndax seen nag nekkin moo daal di lool. gannaaw nag eh, ñeenti weer ci feebar boobu juróom benn junni ak juróom-ñeenti téeméer yu tegal ñaar fukk ak juróom ci ay cas positif lañ fi daal di nag nemmeeku eh, ñi faatu yëpp tollu ci téeméer ak fukk ak juróom-benn lool kii di eh, directeur bu prévention daal di xamle moom docteur Mamadou Ndiaye mi def situation bés bi ñu déglu ko ci micro Sud FM. test yi nga xam ne jot nañ ko téeméer ak fanweer ak ñaar ñoo ci positif maanaam ñoo ci ànd ak doomu jàngoro ji. ci ñooñu téeméer ak fukk ak ñeent ñooy cas contact am nañ ci benn cas importé ci aéroport Blaise Diagne am nañ ci fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ci transmission communautaire la ñu jóge mooy maanaam ñi nga xam ne xamuñu fu ñu jëlee jàng doomu jàngoro ji ci ñooñu nag Touba am na ci juróom géejewaay am na ci ñaar Kër Masaar am na ci benn Yëmbal am na ci benn Mamel am na ci benn Yaraax am na ci benn HLM Grand Yoff am na ci benn Plateau am na ci benn Fass am na ci benn Liberté am Liberté 1 am na ci benn Wokam benn ak Ziguinchor benn téeméeri malade ak fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci lalu hôpital yi saytu nañu seeni yaram te doomu jàngoro ji nekkul ci ñoom kon nag mun nañu wax ne que wér nañu ba ni tey fanweeri cas ak juróom ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeenti doomu aadama jot nañu génne àdduna ki dëmb fanweeri fan ci weer bi ñu nekk yeneen maladi yi nag ñu ngi am tan bi bas bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi nag euh, ci lu ñu jot a lim juróom benn junni doomi aadama ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukki ak juróom jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag ñeenti junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukki ak juróom wér nañu téeméeri doomu aadama ak fukk ak benn ñoo ci jot a génn àdduna ñi des ci lalu hôpital yi ñu ngi tollu ci ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaax askan bi ñu gën a sàmmonte ak kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy wax toujours ci rajo yi ak digle yi ñuy joxe nga xam ne nit ñi war nañu fu ñu toll am seen masque saa bu ñu génnee ba ñëw aussi di raxasi seeni loxo di bañ aussi ci yenn jegeyaay yi nga xam ne war nañ ko am ci yenn bërëb yi ñu moytu ko di fexe ba toujours képp ki nga xam ne jege na la mu des lu toll ci mètre seeni diggante ministère la santé et de l'action sociale muy leen di sant wasalaam Sénégal nag daal di matal lu war a toll ci téeméeri nit ëppal na ko sax ñii daal di nag euh, faatu euh, boobak léegi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi ñu euh, génn nee ñu nag juróom-ñaar fukki ak ñeenti yi ñu daal di nag faatu daanaka ci fan weeru fan yu mujj yi lay fii daal di nag am am yu war a toll ci ñaar fukk ci nit ñu daal di nag faatu ci espace su rek benn ayu bés bi di semaine bi bilan bi nag ci ñiy faatu di gën di yokku jot na ko ñu daal di yokk sensibilisation bi ñax askan wi ci jamono joo xam ne nit ñu bari dañoo daal di nag euh, rawatina li jëm ci matuwaay yi ñu war a jël ngir mucc ci feebar bi Babacar Samb. juróom-ñeenti doomi aadama yi ci daal di ñàkk seen pa bakken ci diggante weeru pa mars jàpp mais ñeent fukk ak ñaar daal di ciy génn àdduna gannaaw xayma gi ñu daal di def ci benn fan ci weeru pa juin juróom-ñaar fukk ak ñeent faatu ci ci diiru pa fanweeri fan yi daal di mujj mbas mile di covid 19 daal di faat lu tollox ñaar fukk ak ñetti doomi aadama ci réew mi ci diiru pa benn ayu ayubés maanaam ci aw xayma lu gën kaa neew ñetti doomi aadama si daal di ñàkk seen pa téeméeri doomi aadama yu tegal fukk juróom benn ñoo si daal di ñàkk seen ab bakken gannaaw ñeenti yu yees yi nga xamante ni ministère de la santé de laction action sociale daal di na koy fësal ni ki tey ci àllarba ci bile bilan ñeel ñi daal di faatu ci feebaru coronavirus bile di gën di yokk waaye itam di wéy di indi aw njaaxare ci xelu paskan bi gannaaw ba nga xamante ni lii di état d' urgence bi daal di nañ koy lever virus bile mu mel ni dafa gën a moom boppam lépp luy activité ñu daal di koy tàmbaliwaat fii ci réewum Sénégal maanaam ay mbooloo ñu koy nemmeeku fu ne rawatina ci espace public yi ak ci dem beex dikk bi situation bi di gën di doy waax virus bi di gën di yokk cas grave di gën di jéggi dayoo fanweer ak juróom moo di limu tey bile ba tax na lii di sensibilisation bi ñu seen xam-xam màcc ci wàllum wér-gi-yaram gën see taxaw ngir ñu mën a respecter lii di geste barrière yi lay yooyu les mesures barrières nga xamante ni lu ëpp ci doomi Sénégal yi jamono ci ñu ngi koy daal di salfaañe Babacar Samb ñu daal di desandi ak nag eh, wàllu Covid 19 bi tax nag ci école yi ak li ko daal di nag wër dañu fa daldi di ne aaye lu aju ci wàllu jaayam nag eh, lu aju ci li ñuy lekk di wàllu ñoom ci établissement scolaire yi aaye bob nag eh, wàllu coronavirus bi moo ko daal di nag waral tax nag élèves yu bari daanaka li ni mel nag rafetlu ko ndax jàpp na ne yenn waxtu yi dañuy soxla rek daal di jëndantu ngir daal di nag wëyal seen activité aji faatu bari. ñàkk fu ñuy mën di lekkee moo waral ba xale yi di jàngee ci lycée Mix Maurice Delafosse daal di dem jubali ci kantine bi nga xamte ne solewul dara seen école. kiosque bi ñu fiy jaayee mburu soriantoo na ak lu toll ci fukki metre ak buntu école bi jaaykat bi takk maskam di farlu lool ci commande yi nga xamte ni clients yi ñu ngi koy def moom nag muy leeral ne balaa ñuy dooraat njàng mi fekk na kiosque bi mu ngi woon ci buntu boutique bi. ma fay jaay man moom fii laa quoi tere bi ñuy tere jaay lekk ci biir ak itam lu jegeyantoo école yi nga xam ne dañ ko ubbi waat bokkoon na ci condition yi nga xam ne dañ ko tegoon balaa ñu doon dooraat njàng mi bi la dogal nag dafa mel ni dañ ko jël te laajuñ ñi nga xam te ñooy ndongo yi. école bi noo ko bëgg jaay. métti na dëgg fa na yàlla mais ñu koy gérer quoi ñu ñu war topp ci bile dogal moo waral ba xale yi nga xam ne terminal la ñuy def ñoom itam dañuy jël seeni mat matuwaay balaa ñuy yegg ci seeni école. benn nit moo fi nekk te élèves yëpp fii la ñu jëndee presque léegi au ñu ñëw fii di dancaloo wax damay indi soit ay chips Pringles lay indaale wala ay boissons wala ma ndékki kër ga avant may ñëw. suñu kër laay ndékkee pare soo ko ñëw fii. ci lu jëm ci ñi nga xam te ne ñooy jaay ñam ci booru yile école itam ñu ngi yëg bu baax a baax njeexitalu boobu la dogal. bu fekkoon man ci ñoom rek laa basé kon bon. instant yii nii du yegg ci examen yi nga xam ne fii weeru août bi la war a door ndongo yi dinañ daal di wéy ci nii ca muy daal di ñëw 9h dugg daal di commencé cours yi dem ba benn waxtu ci boobu la diir nag duñu ñu mën a génn benn yoon école bi waaye itam du ñu mën a dem fenn ngir jënd fa lu ñu lekk. ñu daal di desandeek élèves yi ak lu aju ci seeni révision gannaaw yi cours yi dooraate foofa ca CM Pikine 9 lañ fa nemmeeku mooy cours yi daal di nay tàmbaliwaat ñii di jàngalekat yi ñu ngay rek eh, fa seeni pexe ngir fexe niveau élèves yi gën rek jàppandal primaire bi daal la gis ne niveau bi daanaka wàcce na bu baax a baax banlieue El Hadji Moussa Thiam. 9h toftal na fukki simili fii ci CM Pikine 9 élèves yi ñoo ngi seen biir classe. ca buntu wa nag yenn élèves yi nga xam ne sax dañoo tardé ñu ngi sàkku ci principal bi euh, pour mu dimbali leen ci billet d'entrée ah, ñaari volontaires yu ville de Pikine yi nga xam ni nag ñoo ngi ca buntu wa ñoo ngi saytu dugg ak génn bi thermoflash bi nag daanaka dañ koy teg saw kanam balaa nag ñu laa joxoñ fi nga xam ni foofee la ñuy raxasee loxo yi fii nag daanaka duñu ñu nekk li ki mel Pape Demba Sall moomee professeur la littérature institut moo ngi rappel ci biir classe bi nga xam ne daanaka ñaar fukki élèves candidats yoo xam ne nag ñoo ngi waajal seen BFM ñoo fa ne. Abdoulaye Fall. ci kàddu yu tukkee ci moom xamle ni rek ni daal révision yi dina am solo lool pour xool bu nekkee niveau élèves yi wàcc nam déet élèves yi nga xam ni toog nañ daanaka ab diir jànguñu. il faut ñu xool la ñu jot a jàng ndax des na ba léegi wala déet donc dañuy ñëwaat posé ci ay question xoolaat ndax mi ngi fi wala nekk fi buñ ci kaw loolu nag ci la mën a de continuer njàng mi. mais jàpp ngeen ni liñ toog lu yàgg lii xam naa dina am lu wàññeeku ci ñoom. waaw mën na am mais fu mu wax ni exactement li xew incha bu ñu paree dinañ la a wax dem xam xam nuñ koy mën a rattrapé doon élève troisième ci bis CM Pikine 9 Bigué Diagne ni rek ni daal jotul noppalu jamono ji sax li nga xam ni moo di ubbiteeg bi xaw na ka amal ab tiitaange tuuti. ñoo ngi doon def ay révision et tout. ça va kon fu mu ne pare nañ pour delloo ci yeneen classe yi nga xam ni ñoo ngi nekk ci école primaire bu Pikine 9 foofee tamit lu jëm ci wàllu protocole sanitaire yëpp respecté nañ ko Amadou Camara Diène moomee jàngalekat la élèves yi nga xam ne ñoo war a def seen CFE dina baral loo xam jëmale ko ci révision yi ndaxte nag loolee mooy tax élèves yi gën a soobuwaat ci mbir njàng mi loolu ma suñu problème ndax xale yi da ngay foog ne ba ñu toogee ñu ngi doon jàng mais visiblement ñu bëri jànguñu donc lu bëri loo xamante ne amoon nañ ko xaw na rëcc donc li ñu mën a def mooy euh, jéem a fexe ba jéem a dab dawata dab dawalaatal léegi balaa ñuy jéem a gis lu bees parce que buñ deful lool rek du baax si ñun quoi El Hadj Moussa Thiam doon joti xibaar yi fii ci bande Dakaroise pour rajo Sud FM lu war a si ñaari téeméer rek juróom-ñaar fukk ak ñaar ci million ñu daal di koy nag dugal ci Sine Saloum bu ko defee daal di jàppale nag secteur bi aju ci wàllu nag tourisme bi euh, ñi nga xam ne jot nañu nag koppar boobu ci waa cadre fond bu Covid 19 inspecteur régional bu pôle ba di woo professionnel yëngu ci wàllu nag tourisme ñu daal di def démarche yi war bu ko defee ñu dooraat activité tourisme ca barab boobule Jean Pierre Ndikki ñu déglu ko Ngor Sarr. li ma mën a wax ci enveloppe bi ñu ci jot maanaam euh, dossier yu ministère enveloppe bi ñu ne ah waa Fatick li ko doore bi ñu commencé dépôt dossier cent onze millions cent dix sept mille francs la ñu jox waa secteur du tourisme de la région de Fatick donc le plus grand bi nekk dans la région à trente millions les autres structures c'est soit euh, dix millions sept millions trois millions ainsi de suite xaalis boobu pour fay euh, personnel la mooy seen salaire mooy fay ndox fay électricité boo jëlee hôtel boo xamante ne cent chambres la am probablement peut-être ay trente wala quarante employés la am donc boo comparé employés yi a fay ak un établissement dans le le le, le pôle Sine Saloum où le, le, la capacité est très faible donc ça peut s'expliquer au regard des montants qui sont aujourd'hui alloués lu am solo mooy te lu état bëgg gunge ñëpp ku nekk ak sa taayu hébergement loolu moo am solo na ñëpp déposer seen dossier état pare na pour dimbalee ñëpp li ministre digle woon le 28 avril dernier mu doon wax jëfee na ko tey képp ku ci soxla te joxe luñ la laaj di nga jot ci financement bi moo xam guide la moo xam artisan la moo xam restaurant la Sud FM. Euh, ci Sud FM boobu la ñuy tàbbi ak bësam tey jile di benn fan ci weeru sulet euh, mu yem ak ñaar fukk ak juróom benneelu at yi mu daal di nag euh, am bañ ko sampe ak léegi rajo privé bu jëkk ci mim réew rajo d'information bu jiitu Sud FM jamono jile nag ak ni nga xam ne ñoo ko fa daal di nag samp daanaka wër lii di nag Sénégal yu bari ci ay xew-xew daal di nag marqué dundam bokk na ci lu aju ci wàllu élection ak naka lañ koy daal di yore présidentielle bu 2000 Euh, ci la daal di bokk ba ci jaar-jaaram ci 2005 ak ba ñu koy tëj ni ràpp teewul ba tey esprit boobu mu daan dund moom la daal di yëkkati ca kaw amadu Moustapha Dia. Sud di turam FM di santam rajo Sud FM am na ni ki tey ñaar fukki at ak juróom-benn rajo bi nag li ñu ko xamee te muy màndargaam mooy tas xibaar bu wérte wóor. looloo tax xibaar boo xam ne rek jàll na ci rajo bi askan wi yëpp jàppee ko xibaar bu wér te dëggal ko mandarga boobule nag di bi nga xam ne moo sos rajo bi benn fan ci weeru juillet 1994 bi nga xam ne Abdou Diouf moo ñëwoon daal di koy inauguré mooy woy ba suñ doon yàlla tey niki noonu rajo bi lay nekk rajo bi njëkk doon rajo privé bu ubbi fii ci réew Sénégal lu ni mel ci taxawaayu ñi nga xam ne ñoo ko sos ku ci mel ni Babacar Touré Abdoulaye Ndiaga Sylla Ibrahima Fall ak di gay rajo Sud FM bile dugal loxoom bu baax ci lépp lu jëm ci wàllu yekkali démocratie réew mii ak it gën a féexal tas xibaar akit moom sa bopp bu mu war a àndal ras ci dool lii mu daal di fiy taxawalit daal di sos ay émission ci wàllu olof ak ci wàllu français yoo xam ne jëm na ci wàllu askan wi dundinam wàllum politique ak wàllum mbatitu réew mi ba ki sax émission bu siiw bi nga xam ne daanaka fu mu nekk nii rago yu bëri ña ngi ciy jaar di ko toppandoo muy wax sa xalaat boobule. nga xam ne day firndeel ne rajo Sud FM dafa mës di jege askan wi. lu jël loolu bokk na it ci lu mandargaw ki taarixu Sud FM ba muy siiwal en direct lu tukkee ci procès maître Babacar Seye bi niki noonu it. la njëkk doon rajo bi nga xam ne moo siiwal guléet ay résultats élection présidentielle fii ci Sénégal mu nekkoon atum 2000 bi nga xam ne ci la Abdoulaye Wade di jël ndam li at moomu la sax résultats yi dañ koy dalale woon ci chaîne télévision bi ñu waxee nekkoon fële ca tugal te Sud Communication moo moon ko ginnaaw gi la tëj ci atum 2004 boobu ba léegi nag auditeurs yu bëri ak askan wi yëpp ñu ngi laaj kañ lay Sud FM di am tele bokk na it ci bés yoo xam ne Sud FM du ko fàtte ba mukk ndax dafa ànd ak taa di xam mooy bésu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre 2005 boobale la police daal di wàcc ci rajo bi fële ca immeuble Fàdd daal di jàpp képp koo xam ne nekkoon nga fa di fa liggéey ñu toll ci fukk ak juróom-ñeent animateur journaliste ba ki sax waaraatekat bile di Oustaz Alioune sàll jamono jooja usmaan Ngom ba nekkoon ministre de l'intérieur dafa waxoon ne Sud FM dafa jàllale woon interview Salif Sadio bi nga xam ne mooy kilifa ci wàllu rébellion Casamance bi lu jël loolu Sud FM it daara la ndax kat ay taskatu xibaar yu bëri yu fi jaar mu gi ñu dem nekki ay kàngam ci yeneen i rajo ak yeneen i tele boobu ba léegi nag Sud FM mi ngi wëy di taxaw fa mu taxawoon ndax bu ngi sukkandikoo ci sondage cabinet image 4 bi nga xam ne siiwal nañ ko ci atum 2019 Sud FM mooy rajo bi njëkk ci wàllum xibaar bu wér te wóor fii ci réew senegal mu mel ni ndono lile lu jamono métti métti du musa laal suuf. ak Moustapha Dieng ci la ñuy daal di dem sax euh, ba Ndar foofee nga xamee ne nag euh, dañuy daal di nag dem xamante ji ak sentinelle ñi nga xam ne ñoo taxaw ngir wàllu nag jàmm waaye itam euh, daal di fës li nga xam ne nag mooy région bu Saint-Louis ab association bi nga xam ne dañ koo daal di teg ay fidèles auditeurs u seen rajo ñoo ko daal di nag seq am ay intervention yu bari yu ñuy def rawatina ci seen émission boobu ñuy wax opinion publique Ndar Yves Tendeng les sentinelles pour la paix et de Saint-Louis. lii di tour association bi nga xamee ni bañ ko sosee yàggul te ñi ko sos du ñenn ñu dul ay doomu ndar yu ci mel nii. man dama ci woote Abdou Khali Diop Abdoulaye Sarr Naar Gade Dout Saw Maam Latir Ndiaye. lépp tàmbali ci benn émission bii ñu duppee opinion publique te muy jàll ca station régionale bu Sud FM Saint-Louis bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Souleymane Jules Guèye mi nga xam ne nii mooy secrétaire général bu association bi lee. émission bi nga xam ne day am chaque mardi de 22h30 à minuit. ñun nag ñu koy déglu parce que émission bi nga xam ne waa Ndar dañ ciy wootee di wax seen xalaat ñu daal di dajaloo Abdou Khali Diop Abdoulaye Sarr Nargad Dout Saw ak Mame Latine Ndiaye ci kër Ablaye Sarr Nargade bi nga xam ne mooy papa Ismaïla Sarr bu équipe nationale ñu waxtaan ñu ni dañuy taxawal lu ñu tuddee les sentinelles pour la paix et le rayonnement de Saint-Louis parce que Ndar moo ñu soxal. muy association bi nga xamee ni bokk na ci liñ ci mbébét moo di fexe ba fësal jafe-jafe yu askanu Ndar di fara jànkoonteel te fexe muy àgg ci nopp autorité yi ngir ñu indi ci ay saafara. parce que sur le plan culturel sur le plan sportif assainissement gestion ordure ak lépp lu dañ ci war a taxaw. muy ay jafe-jafe yu nga xamee ni yàgg nañu leen fësal te saa su ne ñu ciy gis ay saafara. ñu wax ci problème ordure yi diggu Pikine bi ba mu tilimee waxoon nañ ci ba ñu dindi ko Pikine ko ñu CM dafa daan fees dell ak ndox à travers cette émission ci leen ko dindi ab diggu Njolofeen bi.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 et ñu daal di faq dem ba Touba foofu itam place bi nga xam ne diine daal na koy am ci programme mu Sud FM daal nañ koy rafetlu lool auditeurs yu Touba ak euh, Mbacke wane ci seen i mbégte Touba Tuuti Sey. rajo am ay auditeurs yu takku ci diggante Touba ak Mbacke mu nekk ay auditeurs yoo xam ni yàgg nañ di topp rajo bi programme bi daanaka dara du leen ci umpo ñu rafetlu lool émission yi ñuy faral di def rawatina yu jëm ci wàllu diine. ñun ñu dëkk côté Touba nga xam ne. wàllu diine ji daf ci am solo gis nañ ne aussi diine yi wax dëgg yàlla euh, euh, représenté wu na foofu ci Sud FM vraiment dañ leen ci félicité di leen wax rek que xëy na mën nañu gën a dolliwaat. parce que dañu toll ci jamono yoo xam ne euh, askan bi dañoo xaw a réer donc lu mel noonu su amee li gën nag mooy ñu delloo leen ci seen diine di leen ci gën di ñaax. wala islamique bi jox nañ ko gëdd. parce que te jii daal mun nañ ne lu bëri si suñu diine. grâce à Sud lañ ko xamee. notamment à travers les émissions de Oustaz Alioune Sall yi nga xam ne ba léegi ñu ngi garder yenn archives yi waaw Sud moom mbégte rek lañ ci am jërëjën jëf waaw Sud FM jagleel na pàcc bu rëy diide fajar gi dangay ngay yàkkamtee taal sa rajo ngir mën a déglu waaraay te yi nga xam ne moom la waa Sud FM di def ajjuma bu ne dañu gis ne Sud dafay ñuy gunge ci nu ñuy xamee suñu diine di ñu jàngal suñu diine même lu xew ci wàllu diine muy màggal muy wàccu liggéey kilifa diine Sud FM da ciy bay laccam ba mu mat sëkk. ñoom nag ñu rafetlu liggéey bi nga xam ni première rajo privée du Sénégal mi ngi koy def. xam nga ñaar fukki at ak juróom-benn ci euh, li nga xam ne moom mooy paysage médiatique bu Sénégal yombul. Euh, seen journal boo ko déglu journal bu complet la. revue de presse aussi bëggoon naa ci wax euh, félicité ci sud parce que bokk nañ ci groupe yi nga xam ne. véritablement seen revue de presse boo ko déglu xam ne lii la ñuy séentu. ci ab journaliste bu responsable ab groupe bu responsable ci wàllu revue de presse. bi euh, door ak tey jii nii moom xanaa mbégte rek lañ si am. tey jii bu ñuy wax démocratie ci Sénégal Sud FM bokk na ci ñi ko fi jëmmal rajo la boo xam ne xabaar yu wër lay joxe te nag wóor teg kon nag ñi ngi parax ndollu ci seen seen anniversaire. di leen ci wax na leen jërëjëf. émission diine yooyu nag bu dee ci programme local bi tamit suñu ginnaaw ndax lu jëm ci wàllu animation ba ci li nga xam ni moom mooy teg ay màggal ak ay cant waaye tamit ay émission thématique tuuti say su Sud FM Sud de ganu bés bi. ganu bés bi ci rapport bi am ci wàllu CAN 2021 bi la daal di nag doon yóbbu ko 2022 kaaf nag gis ne eh, ngir organiser compétition bi ci jamono mbas mi du mën a nekk eh, li des ci compétition bi octobre novembre ñu daal di koy yeggale bu ñu sukkandikoo ci président fédération sénégalaise eh, bu football bokk itam ci comité exécutif bu kaaf la mu gis mooy amuñu woon benn pexe ngir jël li ni dogal bi ni mel maître Augustin Senghor waxtaan ak Alaaji Malick Ndiaye. ñu ngi ak euh, maître Augustin Senghor président ñu ngi lay nuyu. Euh, Malick euh, maa ngi lay indi fay bu baax. yow nag yaa jiite fédération football bi nekk tamit membre comité exécutif bu confédération africaine bu football bokk ci ñi nga xam ne kat ñooy jël décision yi am décision bu mag boo xam ne jël nañ ko muy jël kan bi jëlee ko deux mille vingt et un yóbbu ko deux mille vingt deux naka ngay jàngat ci décision boobu noonu. waaw jàngat bi ma ci am rek defe mooy rek ne wax ne. décision boobu ñu jël mooy décision bi war dal xel ñëpp parce que euh, gis nañu ne jàngoroy coronavirus bi génnagul ci Afrique euh, ci yenn dëkk yi sax mu ngi gën a law donc euh, buñ ci yokkee ne aéroport yeeg roplaan yi dara jugatul donc dëkk yëpp tëj seen ay frontières même frontières yi nga xam ne par yoon lañ fay demee doon na jafe ñu mun te jouer li nga xam ne mooy éliminatoire li ci des may fàttali rek ne li des moo ëpp li ñu jot a parce que ñaari ay bés rek la ñu joué ci euh, juróom benn donc euh, te mënatuñ ko joué ci euh, li des si maanaam date FIFA yi parce que FIFA dafa jël ndogal que au niveau continent africain octobre la ñuy mën a commencé footballaat ak équipe nationale yi donc bu ñu naree ñu yàkkamti def ko loolu dina jafe amoon am na beneen sax argument boo xam ne mooy Cameroun dañu bëgg organiser maanaam kan yi nga xam ne mooy gën a yees si organisation ci euh, au niveau qualité popularité te loolu day war a nekk loo xam ne public bi war nañ fa mën a assister ñeneen ñi nga xam ne soo ci supporter yi jugee si seen dëkk yi war a mun dugg si dëkk yooyu te tant que nag maîtriser wuñu pandémie bi kooku kenn mënu ko garantir loolu yëpp tax na ne euh, daf décider jël ndogal boobu te ñun pour ñun mooy ndogal bi gën bu weesoo loolu nag ñu ngi ko dax ba janvier deux mille vingt deux nit mën na ne lu tax deux mille vingt deux dafa ko def euh, juin juillet deux mais may fàttali ne ci moment boobu tam am na bare yu compétition yoo bare yoo xam ne si période boobu lañ ko dàq organiser kan moment boo xam ne dañuy concurrence ak Jeux olympiques euro ak yooyu wala euh, Copa America day indi jafe-jafe ci calendrier international bi ndax ci jàll li euh, Euh, juin juillet day fekk mu nekk ci nawet te ñoom seen nawet dafa métti trop dina am match yu bare xam ne mën nañu bañ a yegg ndax euh, taw bi loolu daal euh, moo tax ñu dem janvier deux mille vingt deux te dina may aussi suñu joueurs yi nekk si mag yi mën noppal seen yaram parce que enchaînement bi kon su boobaa day métti. donc décision bi daal yomboon naa jël. ci wéy ja yomboon na jël mën nañ jàppal sax ne presque ñi fa nekkoon ñëpp ànd nañ ci loolu parce que moo doon. décision bi gën a dal xel euh, te moom la ñu jël parce que dañu xalaat ne moo gën ci football africain euh, euh, maanaam delloo mbir mi ci date boo xam ne dinañ ko mun jouer ci anam yi gën a jekk pour que mu am maanaam parce que an mooy feetu football africain mu am maanaam condition yëpp matukaay yëpp pour que ñu def ko feet bu rëy nit yi mën fa ñëw loolu moo gën ko di force bëgg respecte maanaam rek euh, suñu calendrier wala xool contrat yi nga xam ne moom la ñu am ak partenaire rek pour buñ ko maintenir wala sax ñuy dem ba ci biir dem ba janvier jege ñu gis ne euh, loolu mënatul yemba ñu koy reporté waat loolu nit yi duñ ñu ko baal donc defe naa li duñ def daal jël biir bu doy pour mën ko gën a day yokk sax waajtaay bi donc defe naa loolu lu xel xel mën nangu la mais président gis nañ ne ngeen loolu Euh, reporter CAN bi deux mille vingt deux waaye maintenir CAN bi deux mille vingt trois ci Abidjan ndax loolu di indi chevauchement ci wàllu calendrier bi. waaw fooguma dina indi chevauchement au contraire sax dama jàpp ne day maye ñu delluwaat si li nga xam ne ñu delloo buum ci booy booy parce que euh, li waral report bi ñëpp am nañ ko Covid dix neuf bi la crise euh, sanitaire bi am ci àdduna si yëpp donc du ñun rek la impacté waaye bu ñu génnee ci crise bi si jàmm fii ak deux mille war nañu mun dellu si li nga xam ne mooy. périodicité kan maanaam euh, euh, diir bi nga xam ne saa yu nekk si li ñuy organiser kan may fàttali na ñun euh, Afrique suñu kan ci année impaire lañ koy def donc deux mille vingt trois arrêté woon nañ ko Côte d'Ivoire moo ko war a dalal donc amul yoon ñu koy reporté waat di delluwaat deux mille vingt quatre et bu may fàttali nit yi aussi deux mille douze ak deux mille treize bi ñuy dem ci année impaire yi CAF defoon na ko fi te amul woon jafe-jafe defoon nañu. kan 2012 euh, bi mu am réussite ñu dem kan 2013 itam mu am réussite donc dinañ ko def ci anam yooyu rek comme ça bu ñu fa jógee 2023 2025 ñu dellu siwaat euh, ci périodicité normale bi. mais président gis nañ tamit ne lu dem ci wàllu calendrier électoral bi da ngeen ko bëgg a respecter pourquoi loolu. waaw loolu rek dafa nekk loo xam ne li ñuy wax euh, principe de bonne gouvernance parce que ñu ci bare suivre nañu ci ay jamono yi ñu génn Afrique dañ doon wax toujours. Euh, au niveau CAF dafa am problème bonne gouvernance ñu respecté yenn kii yi euh, bi ñu xoolee amaana euh, nu mu tuddati pandémie bi indi na ay jafe-jafe ci déroulement programme yi mais am amul raison pour ñun en tout cas ñu reporté ko parce que li ñuy jiital rek mooy def lépp ci respecté suñu charte yi bu amee élection ni si dem élection bu fekkee ne donc am na nay renouvellement ñu bees ñu ñëw continuer liggéey bu amul tamit ñu fi nekk ñu renouveler seen mandat bu fekkee ne loolu mooy li soob euh, ñiy voté donc loolu daal la ñu décidé principe de bonne gouvernance la te loolu defe naa euh, war nañ si mun a féliciter euh, président CAF ak comité exécutif ci li ñu jël ndogal ne duñu laal date boobu amaana agenda bi dina méttitoo parce que décembre déjà dañu am AG ordinaire bi nga xam ne mooy mi ñuy def annuellement bu ñu si jugee février mars ñu war a defaat AG élective bi waaye mm, defe naa loolu mooy li nga xam ne mooy yoon parce que leneen loo fi defoon sax mu mun indi coow donc euh, moo tax ñu jàppee ko noonu. maître Augustin Senghor su defee mu ngi sant di la gërëm bu baax a baax. di leen sant di fàttali yaa jiite fédération bu football nekk tamit comité exécutif bu confédération africaine bu football. jërëjëf. Ah, kon ñu daal di ko fi yemale waxtu yi faf nañoo dàpp xibaaru guddi gi ñu daal di koy nag yeggale ndax nag yi war a ah, jàll te laata ah, dix huit heures ak Adja Xabsa Iliman Wan jaajëfal bu baax a baax Assane Thioune mi ñu faraloon ci sottandiku kaay bi mucc biti ak jàmm bi yër gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.